salaamaaleykum mbokk ñuy seetaan seen site internet lutte tv point com mbégteeg bànneeg rek la ñu am di ànd ak yéen saa su ne euh, nuyu nañ la. Boubacar fay naa la di nuyu waa Lutte di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu dalal gi ngeen ma dalal ci seen émission bi maa ngi leen ci siyaar di leen ñaanal yàlla yokk seen xéewal yokk seen teraanga may leen ak wér. waaw mu mel ni dafa am programme booy waaja a déroulé euh, programme bi kañ la ak nan nan lay demee. programme bi mi ngi nekk la 3 stade Iba Mar drapeau Siré Dia ah, sang di ci bëri ak bébé ama muy drapeau boo xam ne nii Sénégal gi yëpp moom lañ doon xaar ah, ñu tëgg ko stade Iba Mar di ci woo supporters yi ak amateurs yi ak ahlul lamb ak yéen waa Ligue TV yéen ñëpp ñu ngi leen ci jox rendez-vous ci kàttanu yàlla. waaw drapeau Siré nga wax waaye mu mel ni da am drapeau am am na ñeneen ñu si am drapeau ku su mel ni Pablo nga wax. doomi euh, Moustapha Cissé Lo. Pablo booy bi koy bëree mi ngi tudd George Bush ak euh, fils de Croix ñooy bëra bëri drapeau Pablo fils de Moustapha Cissé Lo mais làmb ji nag da cee am surprise yoo xam ne nii da cee xew yoo xam ne nii incha allah ci kàttanug yàlla am na woykat bu mag boobu dina ñëw woy si ci làmba ji am na mbër moo mbër yoo xam ne ni dina ñëw bàkku si muy programme boo xam ne ni programme boo xam ne ni bu intéressé waa Sénégal la ndax événement la boo xam ne événement bu mag la dama bëgg Sénégal ñëpp bàyyi ci xel ñëpp ñëw seetaan si ko ci kàttanug yàlla waaw diggante sang ak bébé ama loolu combat espoir la mais mu mel ni loolu moo seen première journée si saison bi. waaw loolu man Gibson production moom laay jëkk a ubbee lamb ci saison bi ci stade i Mar Diop muy làmb joo xam ne ni ñaari mbër lañ yoo xam ni mbër yu am talaala la bébé ama ay moroomam ki mësula daanu sang noonu la demee ñuy mbër yoo xam ne ni mbër yu am public lañ mbër yu làmb respecté la mbër yu waa làmb teg seen bët la muy journée boo xam ne nii am na yeneen mbër yoo xam ne nii journée espoir la boo xam ne nii vingt lutteurs dinañ ca bëre di dix ci kàttanug yàlla waaw 20 lutteurs 10 combats yéen en tant que promoteur yéen instant yi yan jafe-jafe ngeen di jàkkonteel wala yan yan yan yan procédure wala yan euh, daan la xamante ne nii waa CNG teg nañ ko mu nekk la nga xamante ni tey yombalalul seen liggéey non waa CNG moom mas macha allah ubbil nañu seeni bunt jàppale nañu yiir nañu respecté nañu parce que ku nekk boo amee lu la naqari ci làmb boo fa demee dañu lay toog déglu la boo ko waxee wax lu raisonnable ñu teg ko ci yoon. c'est que nag làmb moo baaxoo fi mu ne ku nekk da ngay xam fa sa doole yem nga tollale fa rek boo yéenoo loo attanut it da nga koy jiñ waa CNG te fekk du waa CNG làmb ji. ku ci nekk boo xoolee fi nga xam ne fi sa la doole nekk ak sa kàttan nekk nga yemale fa say mbir doo am benn problème loolu de laa gis man waaye waa CNG moom maa ngi nuyu docteur Alioune Sarr di nuyu Père Thierno Ka di nuyu Ndiame ak Maguette ak waa CNG bépp kon le daal ñoo ngi wow daal amateurs yi ak supporters yi ak. waa axlu làmb daal si sa journée boobu noonu war a dox diggante bébé ama ak sang waaw le trois maa ngi woo amateurs yi ak supporters yi ak nitu làmb yëpp di woo suñu waa dëkk-dëkk bu ñuy wax seewlef ca boori Ngathie maa ngi nuyu Baye Serigne Mbacke Gueye di ko wax mu dolli ñaan di nuyu Cheikh Mbacke Gueye ca Ngathie di ko wax mu dolli ay ñaan maa ngi nuyu sëñ Sayid ca kàddu bàlloo ji suma xarit la di sa sama sëriñ maa ngi nuyu sëñ Assis Mbacke bu sëñ Moudou Aïssa ne leen nan ma dolli ñaan maay ubbi incha allah dimanche le trois stade Iba Mar Diop ci kàttanug yàlla maa ngi jox rendez-vous yéen ñëpp di yéen waa Ligue TV ngeen ñëw couvrir bis bi maa ngi leen di ñaan ngeen ñëw jàpp ci ci kàttanug yàlla. est-ce que mën nañ mën nañ la xaarandi si beneen bés bi di nga defee ak saison di jeex. 17 ah, mars stade Iba Mar Diop dama fiy delso drapeau Papa Boy Djine ak Papa Yade incha bu boobaa dinañ ñëw ñu yaatal ci incha allah ci kàttanug yàlla maa ngi boobaa waa Sénégal ñëpp nag ñu ñëw ci bisu dimanche bi ci kàttanug yàlla. waaw ma mel tam loolu tam combat la def parce que papa boo jëlee papa yaata moom loolu moom affiche la. waaw boobu sax laa taxawalan sama journée bii mais bi papa boo jëlee blessé ci laa andi sang ak bébé ama toftal ko ma pousse booba comme dafa gaañu blessé ma yóbbu ko la le 3 le le 17 mars incha allah ci kàttanu yàlla. ndax Jibson production yàgg na ci làmb. Ah, dama doon liggéey ci benn structure bu bees bu ñuy wax Baol production def nañ su ma bañ te fen 15 ans wala lu ko ëpp ñuy liggéey liggéey bu rafet. ànd ànd bu rafet bi ma demee nag ba nga xam ne nii ah, waar wi yaatu na te njàng-njàngaan ku mokkal ber sa daara ci laa wut sama mbiram bopp rek ma nekk ci mais làmb moom du ma ci gan. waaw kon làmb doo ci gan moo tax it gis nañ affiche yu neex yi nga xamante ni day yaa ngi koy waajal xal lu duñ def dara lu dul di la encouragé rek di la ñaanal mu yegg seeg jàmm ñun ñëpp ñëw ñu feete ko participer si. waaw loolu daal laa bëgg maa ngi woo waa Sénégal yëpp ñu ñëw ci làmb ji ñu jàpp ci xam ne seen doom seen xarit seen jërbaat seen rak Jibson production moo leen di sàkku ñaan ngeen ñaanal ko bàyyiwuma benn ta benn kilifa diine muy laaye muy murit gi ma bokk laayeen xaadir ñaseen tiijaan na ñëpp ñaanal seen doom seen rakk seen jërbaat Jibson production mu commencé ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabil alamina lan ngay maa ngi woo waa di woo waa ahlu làmb di woo ah, AC Gloire yi ñu ñëw jàpp ci bis bi di woo kilifaay làmb yëpp di leen xam ne seen xarit seen rak seen doom Jibson Production mi ngi leen di tàllal loxo pour ngeen ñaanal ko wasalaam